mu jaar ci sëriñ Mamor mii nga xam ne day mbokkam di wëllëreem ci liggéey bi di taalibeem ngir jëmmi sëriñ Touba sëriñ bi nim ko baaxoo waxe rek ànd ak bokkam yëpp ci liggéey bi mbokk bokk yëpp ànd yéene ko ci ndam ba tax kenn ku nekk wet ga nga féete nga defa taxaw taxawaay bu rafet bu matale ba waxtu wu nekk sëriñ bi di wax xelam mu dal ak mbégteem ndax ni bokk yi ànd ak moom liggéey bi àndin bu matal sëkk bu rafet lool ànd ak Pastef moo tax bokkam yi itam kenn ku ci nekk am na liggéey boo xam ne dala ko féetale ci liggéey bi liggéey boobee bu ci jubloo daf lay sant nga taxawee liggéey booba loolu bu li ñu bëgg a wax mooy sëriñ Mamour mii waxoon nañ ko ci ay wax yu ñu waxoon ci ginnaaw bi ñuy bañ kuy waxal sëñ bi wax joo xam ne jógewul ci sëriñ bi ñu xamle woon sëriñ bi day leen lu nekk am na ku koy wax loo di ko liggéeyloo ca loola waaye lépp loo xam ne jëm na ci am njàng mu mel ne njàngum alxuraan ak xasida sëriñ Mamor mii moom sëriñ Fàllu lu moom la koy taxawloo waxtu wu ne sëriñ Mamor liggéey boobu mu di ko ànd ak bokk yi àndin waafet nekk mooy waa raabitatul madaari alxuraaniya bi ci dëkk bi te sëriñ di ko sëriñ Basirum sëriñ Fàllu jiitee ci dëkk bi sëriñ ànd ko sëriñ Basiirum sëñ Abibu sëriñ Xaali Jaxate mii ànd ak ñoom liggéey booba ba tax lépp lu ci sëriñ Muntaxa defaloo sëriñ Mamor sëriñ Mamor sëñ Xaali mii la koy àndal nekkoon noonu itam daayiratul Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne sëriñ bi def leen di liggéeyloo ci jumaa ji ak lu ci aju muy mbirum diine rek mbirum diine bu ñu ko waxee kon baqeya da ci bokk wala armeel yëpp bokk ci ak jumaa yi ci dëkk bi yëpp waxoon na ne bëgguñu boole seen bopp ñu tënku ci benn tënk te boobaa itam moom xaatama xidma la waxoon ñu leen soññi ñu ànd nas ba waaye loolu lépp ngir bañ a guddal ci gàttal sëriñ Maamoor mii la sëñ bi yónni bëgg lam ko daan yónni ci soññee buñ jàngawaat alxuraan ñu jotliwaat ko bëgg ñu defaat njàng mooma loolu nag sëriñ Maam Mor mooy leeral nag ko sëriñ bi waxee ak na ko sëriñ bi bëggee ak na mu bëgg mu tëddee ba mu demee na mu daan demee te na mu daan demee mooy amin wu rafet wu sell wu matale woo xam ne la ci war lépp ci taxawaay danañ ko ci def moo ñii ma ko àndal ni ma ko waxee la ci war ci ay pas-pas yëpp pas-pas yëpp ñu daan ko def la ci ñaan war ci ay ñaan yëpp ñu daan ko def ba tax luñ ca mas a ñaan rafetees na ci njort ndax lu ca bari dañ ko daal di gis ci saasa lu mel ne yàgg nañoo baaxoo mu gëj a taw mel ne dañuy soxlam ndox ñu njàngim alxuraan mi fas ci ñaan balaa yàgg ñu gisub taw ci loolu lan mën a gëmee leneen lañ ci ñaanit noone lay nangoo ni ni taw ba nangoo kon loolu ak xel mu dal ak rafet jor ak sant yàlla rek lañ cey mën a boole kon ñu jox sëriñ Mamoor mu jottali yónneenu sëriñ bi lu mu ci jot loowaat kenn ci bokkam yi ñu bokkal ñu bokkal liggéey biir kook la la ci war a jot lu mu jotali ko bañ nase ko nañ ko daan dese ba tàmbali ko bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin asubillahi min asheytaani irajim bismillahi man la nabiya baadahu wa akbaru ridwani min allahi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 di fasaale képp kër jullit bayit yi nga xam ni Sëriñ Tuubaa moo ko boole njabootu yonent bépp sallallahu alayhi wa sallam ngir yéene leen lu baax ngir yéene leen jàmm sunu bon defal defal ko ci njàng mii te moo di li Sëriñ Tuubaa wax ni wa aslihan ummata xayri mursali wa farrijan anhum jamian yaa ali warham wa barik summa haafi kullahum wa najjihim waltuf bihim waxfir lahum jàpp naa ne ku dégg loolu sëriñ bi ñaan ko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 te loolu gannaaw yàlla taxawaayam boobu moo ko waral kon ñu ngi ko ci sant bu baax te di ko ñaanal suñu borom nangul ko yokk aw fanam ak wéram te nangul it mbooleem ñi nga xam ne topp nañ ndigal lool yi kon ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan di ko ñaanal fanu wu gudd ak wér eh, yàgg koo jiite ñu yàgg ci ànd ak moom ci barkeb sëriñ bi. li ci des incha allahu taala eh, suñu mbokki Muxaddamatul Xidma danañu gën a jotal defin wi kon bismillah.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 danañ la ko fekk ñay ñay jàng fañ leen war a fekk joxleen ko incha allahu taala ñu ngi sant ñëpp di séntu ñëpp di jàpp ne ñëpp itam danañ jàppalante ak ñun ci ndigal li ci ni ko sëriñ bi santaane incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.